télévision diggantal isiji woni duwa min duwa o télévision kanal ka sawa wona adi wano jaw sakkini o kono ajib sanima subhanak rabbil sina walhamdulillahi rabbil alamin sëñ bi xam naa laaj boobu nga laaj ak jàkk bokk moomu laaj la bu bu am solo bu am solo lool ndax maanaa ñoom ñuy tudde da yàlla da yàlla widd moo am widd widd moo am dëgg yàlla amoon na band boobu ci ci ci yoon yónni woon ba ma déglu ba ma déglu ko góor ga di la muy wax ne sëñ Tuubaa ci laa ilaha illa la doon tërbiya ñëpp ci lañ ci la ñuy ñuy tërbiya c'est-à-dire boobu ñu ñu ñuy wax sama mag sëñ Moutara Diop nee na laaj na si si ay bu nee na ko masalik mooy la sëñ Tuubaa nekkoon bëggoon ku ci ne kon ko kon moom foofu la doon woo nit ñi loolu dëgg la sëñ Touba lam du tërbiya xanaa waxanaa ko ci ci waxtaan xam xam ci ci woon laa ko waxati waxoon ne sëñ Touba ni ko simba leen Jóob waxee ci waa Unadim ngi daal tërbiya ci jàng alxuraan jàng xasida ak sikar laa ilaha illallah ak al istixdaamul kasir liggéeyalu nit ki mu ñaq waaw xam ne ñaq joxe jooju kon jàng alxuraan ak sikkar ak jàng xasida yooyu moom la Sëriñ Tuubaa doon tërbiya léegi gi nag question la boo xam ne ñëpp ko koy laaj amoon na daara sàngam yoo xam ne kenn ci daara ji ñëwoon na ci ci kër ga ñëw ci kër gi ci kër ga bu nekkee daal mi nam ñëw fa takkusaan ma nga yo sosol ca caaye ju gàtt laxasaayu ñëw ne ma man kat daara sàngam kat saa bu sa waxtaan wi di tàmbalee dañu dajaloo di déglu waaye dañuy dañuy dañuy dajaloo di déglu daal ma sax de maa ngi jàng sax de ba tollu naa Masalik loola ab gag la nekk ci nekk ci daara joo xam ne maanaam léegi gi yenuy paan képp nga fay def bay rek nga xamante ne yow ñàq wi mujj ci yëf ya wala bokk di di leen ci élément yi tërbiya moom donc mu ngay def boo fa jógee sëñ ba bu dul kaamil dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg koo xam ne dalay mën a wàllu jikko léegi wala xaal léegi yéegale ci maxaama léegi ah kooku day moom wax dëgg dëgg yàlla maanaam dog-dog bi am diggante sa diggante mag ñàkk noonu dara waralu ko lu koy lora boo dee xool donga yi wax dëgg yàlla da ngay da nga leen yërëm da nga tiit boo boole ci ndax yow la la nga doon focus ñëw ca mag ña kenn wax jëm doomu aadama néew la doon demal ànd ak mag ña xanaa yàlla la xeer xeeroon ci ci ci ñoom ci ngay dox ku def loola da da am nga taw feex waaye ginnaaw kenn néew la woon yoon waa gi nii mën naa am kon wiitaay wat dana taxaw ba sax yitte ji lu mu lu mu bari bari dana des ñooñu nag muraad lañ muraad moom suñu ba ma yor seen mbir yàlla nañ jot suñu ba boole kon tërbiye googu ñooñu li ñuy wax seen xaw ma slogan lañ koy wax ko slogan yu ñuy waxee ñoom lu wér la de masalik lañ tubaa doon wootee la ilaha illallah la ilaha illallah nag lim boobu ñu ñuy joxe ci nga wax noonu ne dañ koy joxe ku jun ak ñaar dafa am benn waay bu ma sa romb benn xale xale bakka sant romb waay ma nga sollu tilim ñàng lool mu nuyoo moom mu mel ne ne daal yaram ma tàng naan tànge ma ne ko sëñ bi xanaa da ngay sikkar lay dexe ma ne waaw ma ne ko ma ne ko bako te sikkar nangam ak nangam loola wax dëgg yàlla widd gi ci sëriñ si ginnaaw seen yitte jëpp léegi mooy daal mel na ne sëriñ Tuubaa daal kon moom mboolee fi teg mu jeex te fi teg rek mu jeex xam ne moom amul lenn lu leen war suñ seen diggante ak moom loolu nag mar wi ëpp na ci nit ñi sun suñu borom moo marloo nit ñi bëgg ñu ñu wuli ti ti suñu borom papi papirgo ilallahi jamian ayuhal muminuun loolu suñu borom moo ko def ci noonu muy mar woo xam ne suñu borom ko ji mooñ ko mooñaale kon nag maanaam léegi saa bu bu ñu amul ndox mu sell mu ñaan danañu wuti ëmbutit benn si am mbakke mbakke mas na maa woo téléphone ginnaaw ba sax gis nañ mu wax ne ma kat Faydul Abdul Xadim Fayd fi Xadim moom moom lay gëstu te di ma digg si waxtaan mel ne xam nga nga ci dara mu ne ko ah bat bi di wax yàlla Faydu moom ñun xamuñu ko yoon murid yi xamuñu loolu loolu loolu loolu concept kan la concept waa Kër Baay Ñas la ñoom ñoom ñooy wax loola faydu du Abdul Xadim te mooy fay faydu faydu abil abil abbas mooy lel mooy barkeb si si Ahmad Tijaan Sariif ak leeram nga loolu ka ko doon kooka kooka doona loola mooy tudd faydu abil abbas loola ka ko doon ñoom ñu ne Baay Ñas la loolu si seen école la waaye ñun xamuñu baat boobu kooka wax ma lu métti mu ne ma man ka daa bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a ami donga non maanaam kon xam naa kon ci aada ja la kon nag bëgg daal xanaa xanaa kii dara yàlla doon sax gis gisante waat duñ ci ginnaaw boobu ginnaaw ndaje ma ñu daje nañ ci ab daje moo ma xàmmee ko noonu ndax lii ko téléphone la waaye loola kon kon wi dem na kooka kooka neen daa war a ami donga te xamut lu wax ak ñoom maanaam nag ñi nga xam ne nag ñoo jël. ya ñooñu di di tudd ay yàlla yàlla di di dund ci di di di dundi nit ñi ah si mudu laaj bi nga wax li li nga wax ñu ngi ko leerale ray gi xatala mu'minan muta'ammidan fa jazaahu jahannam ak ci ci ak ci xatala nafsan bi xayri nafsin fa ka'annamaa qatalal naasa jamii'an ku rey ku rey benn bakkan mel nga ne rey nga adduna bépp wa man ahyaahaa nag koo dundal fa ka'annamaa ahyaa naasa jamii'an yàlla wax loolu te rey moom kon dafa am rey moral rey ruu dafa am rey conscience dafa am rey jëmm dafa am reyin yu wóote la loolu nag widd am na xam naa daal responsabilité bi yaatu na sëñ bi la ko laaj responsabilité bi yaatu na sëriñ si ci jiitu ndax bu nit ñi dee wéré di di alku rek kon dañ daan anamécien ya monsieur jëmm ya waaye bu dee ruu yeey alku ñu ne ana ana anamécien ruu ya bu dee ru wéree di xel ya ñu ne ana médecin yi xel ya ana philosophie ya yow war a leeral nit ñi loola moom yu yu bare bare kon kon kon responsabilité bi kon fi mu gën a ji ji jëm moom mooy ci sëriñ si. xam naa nag loolu si loolu si li nga wax ne kooku ñu nga xam ne dañoo dañoo ras xel ma xam nga am na mbootaay goo xam mbooloo xam ne sax tuddu si Sëriñ Tuubaa am mbooloo sàngam. maanaam léegi am na ci xam-xam bu ñu jëfandikoo boo xam ne bu ñàkk solo jaay bi su boo tooy rek la ci ni ngay tërbiyu rek mu dete ko bu bu la nangulee ay bis rek bu la nangulee bu ñu toogoon fii sewet ci nga mën a xam lu muy xaar léegi léegi am na mbooloo yoo xam ne dañ ko jëfandikoo jàngat tubaab yi ñu ñoo fi ëpp nag dañ yaakaar ne dara la ndax ñoom mystique te baat bi xamuñu lu ñu firi ñu yaakaar ne rek mooy loo xamul loo xamul rek ku naa leen yaariñ ci kër gi toogal daa jox du la sant daa jox ko naa la alaxira nangam àjjana nangam te te du la wax lenn lu koy maye ci nga toog di di xoole mu ne la kaay moo yàlla sax te mooy gi dagan na nga ne ko askay loolu moom jànkatoo bi xamut wa rawatina ñu jëngul for dara ñoom ñoom ñoom ñoo ci ëpp ñuy jàng daara daara képp it te te xamuñu fu ñu jëm ni nit ñi wër leen naa leen sëñ bi sëñ bi ñoom it dañ ci biir loolu moom ay dem crise la ndax ndax ndax xam-xam yi sëriñ si lu ci ëpp nag lasaar képp la pour yàlla moom kenn lu wutiwu ko ma ndax kenn soxlawu ko ndax leer la te leer nit ñi dafa sonle lëndëm a gën a neex sama baay daana wax naan mbooloo kat mu ne ma mbooloo ak ñan moo koy dajale ak ñan waaye waaye na ndax dëgg dafa naqari sëñ Ablaay Jaxate mu baax ma ne woon na ma bukk ñoo gis nee na leen boole waaye bu ñu leen waxoon dëgg ñu takkali ko adduna ngoog jamono ju doy waar léegi ngay mooy xanaa fexe yow ba bañ a bokk ca ñay alko rek fexe sag njaboot bañ a bokk ci te te te ñay alko waaye alko ne ko de suñ bi waxoon na ne mag ñi des na diir bu gàtt li ëpp ci ndaw ñi mattum safara lañ loolu moom jamono ngoog parce que dégg benn colloque ca Mali benn waaye def intervention wax ne ah Mali di fi doon am na am na fi ay ay muraay yu yu bees yu fi juddoo léegi sax nangu nañ sax for doo ngay sëriñ si si si si fi nekkoon waaw ah laa xam nga nag ku toog naan saamaam saamaam rek yow yow nii woo man nii woo man day mujj nag wax dëgg yàlla ku dikk ne ne man la day day gën a nag day gën a nag yees nag maam maam maam maam maam jur jeex day mel ne nag maanaam maanaam yi dafa mel ne muy gën a yees wala nga ne si tubaab waxoon ci woon maa nii xaw lihim naqaltu nettaliwaat mag ñi nag ba nappi ne man kat su ma waxee loo xam ne bu mu ne bu mu ne maane nag ñu xam ne rek ba tey maa ngi ko tàngawaat ca secret yi mag ña waaye rek maam maam loolu daal moo moo xajamal yi fii lool lool lool lool lool laa ilaha illallah de ñooñu ko waa de seen wax ja slogan ba dëgg la de laa ilaha illallah képp de sayyiduna Aliyu karamallahu ca ni ko ni ko silsila ba waxee yonent bi salaam ko ko sax ñetti yoon ni ko nii la ma ko siina jibril alayhi salaam saye ne ko nii la ma koy suñu borom rabbay seti saye loolu mooy doxiinu tasawuf mooy batin ba mooy secret ba ko ci waaye nag lim yooyu ñuy joxe man day la ma ca xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg junneeg téeméer fukk ak benn dund gépp doy na ja junneeg téeméer fukk ak benn dund gépp doy na ja wa illaa nga di ko def weer wu nekk benn yoon muy junneeg téeméer fukk fukk ak benn ba wala nga wala wa illaa ay bis bu nekk ci ci nga def ko benn yoon doy na sëkk nag bis bis bu set benn yoon junneeg téeméer ak fukk benn soo ko defee su moom dugal ci yow ay leer dugal ci nga la su moom dugal ci yow ay leer sama baay daal damaa waxoon ne ma kat jaamu yàlla gone na fexe ba juróom-ñaari ci yi ci mooy yàlla bu noppee loolu lu mu tollool ci ci at ci ci ci ci sariya mu ne ca mooy mooy nee na julli kon fexe mu wér nee na kon koor nee na asaka kon kon maanaam ñu ñëwagut nee na añ makka maanaam ñëwagut non nee na soo soo nekkee ci ci loolee sa xol bi sell nee na kon amaan na nga xor xor ci xol lii lii rek la ngay jëndoo bagage yu bëri yi di jël ko kenn koo xam ne it mën naa dox sa diggante yàlla bu ëllëgee taxaw bi kanam yàlla nga dox seen diggante amut yàlla képp la sar nii wa man xalaqtu wahida loolu yàlla wax de sallallahu alayhi wa sallam li muy màgg màgg su bés pencee danaa ko bama ak ñi ma bindoon sar nii baat bu métti la bama bama bama bama de maa leen bind man képp maa ko joxoon alal maa ko joxoon doom maa ko yoroon lépp kon bama ak moom xam naa ko bu wér cëng alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiiful xabiir xam naa ko bu wér ni ma la xamee laa ko xamee kon ko kon kon nag képp ku lay wax lu dul awal fii jaamul yàlla kese wéetal la yàlla kese ponkal say waajur waxadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu jub la diine esana yàlla na maa àtte ngeen jaamu man képp maa àtte ngeen fonk seeni waajur maa ko àtte de waxadaa maa ko àtte de kenn kenn mënu cee dara laa mu'aqiba li hukmihi kenn nu mënta soppi àtte bi yàlla ba de wallahu yaxkumu maa yurid nee na may àtte lu ma neex loolu man nam ma maa ko àtte kenn kenn suñu mënee ma lu tax nga àtte ko kon nag nit ñi seen bopp ñoo war a ceewu waaye ah xam naa nag ñi yet anañu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu